nous la libération ñaar euh, yu bokk ci yéen muy Birame Souleye Diop ak euh, El Malick Ndiaye ndax ngeen accueillir loole bon man euh, xam nga comme li mu la ko waxee léegi rek neew ma woon dakaar dama génnoon nekkoon aussi di assister ay xale ya nga xam ne dañ leen arrêté woon. Mhm. la nuit ou bien ou bien dans la journée du 15 juillet avec la célébration de l'anniversaire du leader. le président Ousmane Sonko et la journée du euh, bi mu pour ñu génn les casseroles là effectivement. donc il y a eu des arrestations ce y a des interpellations mais ils n'ont pas okay. été ils n'ont été entendus par la gendarmerie et relâchés quoi. d'accord d'accord vous comprenez mais ensuite comme ni nga ko waxee rek c'est un ouf de soulagement. mais tout en disant que bon lu warul woon nekk la en réalité parce que en réalité si vous prenez le cas de Birame Souleye Diop c'est mm-hmm. quelqu'un qui a qui a qui a certes commis une erreur et qui l'a reconnu qui l'a mm-hmm. présenté ses excuses je que mënoon a yem foofu je que sa grandeur moo def que euh, il a présenté ses excuses quand même au peuple sénégalais mm-hmm. xam ni moom responsable et puis comme ni mu ko waxee kenn mosu ko xam si wax yu déplacé wu wala wax yu tegg ni nit ku yaru la nit ku vraiment ku euh, peut-être nag na waxee xol mais biram ku ko ah, xamul wax li nga xam ne nit ki quand même nit ku posé la nit mhm. ku dal la voilà nit ku ka nga xam ne kenn xamee ko vraiment wax ju ñaaw quoi mhm. pour le cas de El Malick comme je le dis toujours euh, li ñu ko toppee pour un audio te audio bi l'auteur de cet audio là a appelé pour dire que je suis l'auteur de cet audio là je pense mhm. que mbir mi war woon sax dépassé gendarmerie ba di dem àgg si juge d'instruction je pense que euh, li muy wane rek donc y a une persécution y un harcèlement quand Euh, fait sur quand même les les les personnes surtout dirigeantes de Pastef. Ah. et même les membres de ah. Pastef.